président daf ñu daf ñu jox ay ndigal pour ñu xoolal ko liggéey bi nga xam ni santaane na ko fi ndax gis nañ ni bu tawee fii ci ñu nekk ci zone de captage dafa nekk foo xamante ni fu bari problème la ci biir Ndakaaru ba daaw bi nawet bi weesoo mu ne woon nañ fi def programme bu am solo programme bi toll na ci ñaar fukki milliards ak ñeent bu ñu nee nag zone de captage bu fii rek ci du ñu ko gisee ci wàllu technique fii la waaye it fi ndox mi di jógee Philippe leen sengoor ci la bokk mais aussi cité Bellevue ci la bokk te cité Bellevue xam ngeen ni euh, cité bi dafa nekk mais aussi centrale électrique dafa nekk kon loolu yëpp dafa war a tax ñu seet ko ministre de l'intérieur mi ngi koy topp bu baax a baax ma ko ci euh, ndokkeel di ko féliciter mais aussi ministre de l'assainissement mais tey moom ñi ñu war a sant mooy population yi ak waa ONAS ndax ONAS mi ngi def liggéey bi ñu ko sant te it population yi nga xam ne ñoom ñoo moom liggéey bi seede nañ ko ci seen kanam muy délégué de quartier bi mooy ñu fi nekkal quartier bi muy waa mairie bi wax nañ nag bëgg nañu liggéey bi gën a bar incha allah liggéey bi dinañ ko gën a baral bu soobee yàlla semaine bi ñuy dugg dinaa leen woowaat ndax ñu li ñu président sant mooy nekk sur le terrain xool li nga xam ne moom mooy yitte population bi ñu xool nu ñu koy saafara surtout foo xamante ni yàlla def na lañ ci waroon a def ñu xayma ko ba jox service yi pour nañ ko def kooku li ci des rek moom mooy topp liggéey bi pour mu pare incha allah dinañ ci taxaw te du yàgg dinaa waat beneen ndaje ak service yi pour xool liggéey bi fii d'abord mais aussi yeneen feneen fi nga xam ne ay liggéey tàmbali woon nañ ko fa pour gën a woyofal askan wi seen dundin bu nawet ñëwee moo xam Kër Massar la moo xam ci booru Mbaaw la moo xam aussi ci biir région yi defoon nañ ko fan yële passé Touba de foog ñu xool bañ fa jógee ak léegi liñ fa waxoon lan lañ ci jot a def ndax liggéey bi du jeex waaye li am solo mooy lañ la sant nga def ko ba mu mot sëkk. boo ko defee ba mu mot sëkk bu boobaa danga mën a wax ak askan bi lii laa amoon lii laa def mu des lii mais li bon rek mooy nit ñi di yaakaar ni ñu ngi def fekk ñañu teg ci terrain ba dañ koy defee dëppoowul ak nañ ko bëggee loolu aussi foog ñu seet ko bu baax. moo tax incha allah fan yii di ñëw euh, dinaa woote waat euh, beneen ndaje euh, bu ñu paree loolu yëpp ma boole ko jébbal ko président de la république wax ko ci la mooy appréciation gouvernement bi dégluwaat ay ay ay ay ay ndigalam mais en tout cas maa leen di sant ñëpp surtout population yi ndax la ñu wax mooy lu ma gën a doy mooy boo toogee ak maire maire yi toog ak délégué de quartier toog ñi nga xam ne ñoo toogal askan bi ñoom ñi nga xam ni bu problème amee ñoom ñoo koy njëkk a dund bu ñu nee ah ñun kat lii gis nañ ko fi lii jëm na kanam bu ñu sañoon ñu yokk ci lii boobaa xel day dal li ma doon gën a jaaxal kay mooy li nga xam ni président waxoon na nañ ko def daaw ñu ñëwoon fii ren population yi nee ñu li ñu waxoon yëpp dara defuñu ci dara bu boobaa danañ am jaaxle dañ am jaaxare mais ni ñu ko gisee liggéey baa ngi dox teg nañ ci suñu bët incha allah li des mooy ñu baral ko euh, directeur ONAS nee na mur bi war na pare fii ak 45 waaye nañ fexe wax ak moom wax ak entreprise bi. ba la ca war yëpp ñu def ko pour que gën baa bari fii ak fanweeri fan mu pare waaw ndax ñu nawet ba ñu ngi dugg ci nawet te taw bi mën naa ñëw saa su nekk mais li am solo moom mooy bu taw bi ñëwee nit ñi mën a gis nii nii la demee woon daaw waaye ren lii tane na ndax def nañ fi nangam ak nangam nangam ndax liggéey bi du du du jeex boo defee defee li nga war a def ba pare bu boobaa di nga mën taxaw ak askan bi ne leen kat lii lañ ma santoon lii laa def mu des nangam loolu daal mooy li ma bëggoon ma lay may rafetlu. seen um, teewaay fii yëpp di leen félicité bu baax a baax di leen nag gën a soññ ndax ni ko président bëggee mooy na gaaw waaw il faut que li ñu fi diggaale woon ak population yëpp balaa nawet bi ñu def lépp bu ñu ko defee jubluwaat ci yeneen chantier loolu mooy la nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam ma leen di sant di leen gërëm